xam sa démb xam sa tey xam xam sa tey xam production de Goethe Institut en collaboration avec les Archives nationales du Sénégal et Kër Leyti la maison de l'oralité et du patrimoine. àdduna yàgg na ci démb lay jóge déglu leen ma may ma nopp ma nettali leen jaar-jaaru Sénégal bu rafet bii sunu réew mii may leen ma nopp ma ànd ak ñu tukki ci jëf ju mag ju réew mi may leen ma nopp ñu dundalaat sunu xel ak sunu fàttaliku ñun doom yi fàttaliku ay doomam di góor di jigéen may leen ma nopp ñu wax ci ñi nga xam ne seen jëf rafet na ba nettali bi rafet may leen ma nopp ndax sunu taarix dafa rafet te jar a xam may leen ma nopp seen noppi xol nag laa soxla ngir ma ànd ak yéen ba ci suñ biir xolu démb may leen ma nopp ngir ñu mën a dund sunu tey may leen ma nopp ngir ñu mën a waajal sunu ëllëg ñun ñooy taarix xam sa démb xam sa tey di waxtaanee tey Koli Tegnella Jaaje Ba Koli Tegnella Jaaje Ba mooy kan nanu jàpp ne sati gi Tegnella Ba moo ko meññ di baayam ak Nana Keita di malenke boo xam ne ma nga jóge woon ca Baxunun baayam nag te ñala ba buuru pël woon jiite woon ca ñi mi ngi maase woon ak ñooñu naan Soni Alibert Askia Mohammed Elage moom nag baayam dafa wutoo di ngànnaay wuti jàmbaar dal ci kaw buuru jaare yi nga xam ne dafa nangu woon sooraay yi jiite ko ci biir xeex yooya sax Teñala Bàccala génne àdduna 1512 waaye li war a xam mooy Koli Teñala sàttigi Teñala Ba mooy baayam Nana Keita mooy ndeyam bàyyi ma nga daanu ca xeex 1512 doomam nag Koli Teñala moom ma nga jàngee xeex ca réewum Mandé waaye foofa ca la jàppe ne moom war naa am réew mu rëy muy réewum pël ndax li ko yëkkati woon mooy fexe ba pël dootu sonn kenn dootu ko toroxal teyit dootu wékku ci kenn ku muy dem di fay galak noona sax moom moo tax bi am génn àdduna mu dajale jàmbaar ya fa des daal di wër fuuta jalon jël yeneen jàmbaar yokk ca ca noona sax bi muy tëgg armeem boobu ca la dem bajaar ca la dem kaabu ca la dem ñaani ca la dem wulli ca la dem réewu séeréer cala la demit jolof ca la demit firlu waaye fu mu dem rek jël jàmbaar ya boole fu demit muy pël muy malenke muy waasa wu mu mënti doon ñetti gën a jàmbaare mu jël leen ndax wóoroon na ko ne réew mu mu jaar boroom réew ma dana ko xaar te dana dal ci koom kooku mooy Koli Tegnella Ba Koli moom Satigi Tegnella Ba ak Nana Keita booy wër Koli nag da koy fekk ci toolu xare ndax lim am ci ndam kenn mënu ko lim ndam yoo xam ne xaralam ci wàllu xeex moo ko ko mayoon loola moo tax li jàmbaar yi bëri bëri bu ne ay ayti ñëpp jóg bu ne ay ñëpp toog mu tàggatoon leen nag ñu yoroon ay fas yoo xam ne maara day foo leen natt ci rafetaay doole romb nan ko li ñu yoroon ci xeej ak fett nag amut kenn koo xam ne buñ la ko dékkee danga nga mën a ubbi sa dënn daw ndax boobu tëgg yi tëgg yi lañ dajale rek na leen tëgg leen ni ngànnaay ñuy tëgg rek lépp loo xam ne nag xeex nan ba am ko loola ñu ci jëlee ca la jàmbaar yi daan dund ca la ñuy jëlit seeni jumtuwaay ndax lépp dafa tegu woon ci yoon Kolite Ñala noonu la yéege jëm fii ñuy wax Fuuta Tooro te jamono yooyu mu tuddoon Tekruur waaye ñu toppoon ci ginnaawam xanaa jàmbaari pël ya jàmbaari mandeng ya waaye jàmbaari joolaa ya jàmbaari basari ya jàmbaari koñaag ya jàmbaaru naalu ya ak baga ya ak ñeneen ñin mënta lim mu def leen rek wenn say booba nag lenn ci réew mi jolofa ko moom fuuta it ca biir fuuta ci xarnu fukk ak juróom benn fukki ak juróom benn am na ak réeroo gu am ci biir askan wi kon dëkkandoo yi xeex ci seen biir naar ñoom buruxlu ca biir lu nu gis dal ca kawam yóbbu tubaab yi ñoom fexe nañ ba seen comptoir yi nga xam ne fa la ñuy jaayee bitig yi ñu topp tefes gépp teg ko fa ba pare nag fas yéene dugg ci biir réew mi xam nga loolu boo amee askan wi askan wi dañuy jaaxle nekk ci jiixi jaaxa amatun kaaraange. Koli ñela ne moom dana joxaat Fuuta boppam dana fexe ba réewi maamam moomaat boppam loolu moom moo tax li war a njëkk a def mooy fexe ba askanu Fuuta juboo ndax mën a jaakaarloog ñi nga xam ne dañoo jóge bitim réew dal seen kow loola moom moo tax ñi nga xam ne bugguñu woon jàmm amaat mu war a dal ci seen kaw noonu la koli fexe ba jàmbaar yi seen dënn jóg bu daan waaj a nag wala muy xare ji day woo géwël yi ñu tëgg junjuñ yi ba dënn góor ñu jóg bu góor ñëpp seen dënn jóge mu daal ne ayca way leen guddi gépp ñuy way yeelaa jigéen ñi di ko way kenn ku ne ñu lay wax sa njàmbaar bu boobaa bu ñu jóg di xare ji kenn ku ne leen rek ngay ragal am gàcce waaye dootoo ragal mukki jàkkaarloog yow kooku moo doon Koli Tengela Koli Tengela ngi noonu mooy jàmbaar ji daan def bu xare waree jot mu dajale jàmbaar yi ku ne ñu wax la say maam wax la sa jom ku ne ñu wax la la ngay jomb ku ne ñu wax la saw fit fam ne ba boo jógee loo jàkkaarlool dal ci kawam kon nag Koli Tengela ngi noonu noonu la def ginnaaw bi mu ko leeree na ay jàmbaaram ragalatuñu lu dul gàcce moom mu song ay xeex song ay xeex song ay xeex ba Fuuta Tooro jotaat boppam mu toog ca bopp ba yilif ko Koli Tengelaa ngi noonu ana nu ko tuddee woon ñu ngi ko tuddee woon Satigi ana fu mu defoon pays ba ma nga defoon pays yu réewam Tumbere Genge kooku mooy Satigi Koli Tengelaa Koli Tengelaa moomu nag moom moo sos giir gi di giiru pël ñu tuddee ko Denyang Koobe kooku na ko ñëpp jàpp Koli Tenga ngi noonu gis ngeen bu daan song ngir dal ci am réew ngir moom ko da daan ànd ak askan wépp ànd ak waaso yëpp ànd ak réew mépp noona it la daan def ba muy yor réew ma daawut am xejj daawut am xej seen ñëpp lay boole rek ñëpp yor réew ma Koli Tenga laa mi ngi noonu Kolite Ñala moomu nag dund na dund na ba atum 1537 waaye bi mu génnee àdduna rakkam Labbate Ñala moo ko wuutu ana kuy Labbate Ñala rakkam ji sësoon ci moom rëkk te du ko rëkk rakkam ji mu jàngaloon xare ak jiite ba bi mu génnee àdduna moom deewam ñaawut ndax Labbate Ñala téye na nguur gi moom ci boppam wéyale xeex yi moom ci boppam képp ku song fuuta mu dal ci sa kaw nga daw génn moom ci boppam labba teñe la ko li labba wuutu waaye labba làbbali na loolu moom moo tax bi nga xamee ne labba jeexal na ana ku teg ci ngangu naay gi sàmba teñe la ba sàmba teñe la ba moom rakki koli tengelaal waaye bi nga xamee ne doom ji màgg na di gelaajo tabara moom doomi koli teñe la jël nëkk ngàngunaay gi nga xam ne baay ma ca toogoon mu toog ca kon ana lu ñu war a jàpp waaye booy xool ba xam taarixu nit rëy na xoole ñi topp ci moom ba xam rëy nañ koli teeñalaa bi nga wàcce labba teeñalaa topp ci ginnaaw labba sàmba teeñalaa waaye anam ñeneen ñu toppoon ci yow sire sàmba laamu bokar sàmba laamu galaajo yéegi sàmba sule njaay tur yooyu bay boo ñu jàpp leen ndax mooy gor ñu baax ñi nga xam ne ñoo wuutu koli tengela danaa ko limaat muy Siré Samba Laamu Bokar Samba Laamu Samba Gelaajo Jéegi Sule Njaay ñii nag ngeen dégg ñu leen di way ci Fuuta di leen di way ci Yeelaa ndax li tax ñu leen di way mooy danoo xeex li tax ñu leen di way mooy danoo bëgg seen réew li tax ñu leen di way mooy danoo gore li tax ñu leen di way mooy daaw ñu may tubaab bi dara daaw ñu may kenn dara daaw ñu may naar dara daaw ñu may benn doxandéem dara jàpp leen ko kóolitee ñalaa kenn du ko fàtte boo ne Fuuta ñu ne Koli boo ne Denyankoobe ñu ne Koli kon nag Denyanke yaa ngi ana kuy seen maam Koliteñe la Koliteñe la ana fu mu xeexee xeex na Mali xeex na Sénégal fexe na ba Fuuta moomaat boppam kooku nag waroon na jar ñu waxtaanee ko tey moo tax xam sa démb xam sa tey doon waxtaanee Koliteñe la xam sa démb xam tey di waxtaan wu leen Goethe Institut may ànd ci ak Archives nationales du Sénégal ak it Kër Leyti maison de l'oralité et du patrimoine direction artistique ak présentation Massamba Gueye assistant Abou Soumaré régie technique La Factory bu Ousmane Faye ci xarala gi Roland Sagna coordonnatrice Bouye Fall Goethe Institut